licencié les licenciés mille et quelques mais dañu bëri nag dañu bëri li bëri mais boo xoolee journée journée bu nekk y' a vingt lutteurs. gars dañuy bëree ki bëriwaat. te y' a et dimanche dem. ak mercredi samedi am aussi am na. mais attention ah xale yi bëri dinañu bëri ah. non mais xam nga aussi Bécaye xam nga yaa ngi wax le problème des licences. Mm. c' est tellement important. Mm. mais aussi lamb ñoo war jël seen mutuwaay parce que da gis mbër moo xam ni. tant que amul combat du renouveler sa licence. Ah. dafa war am période boo xam ne. période la période de renouvellement la bu jeexee ñu ne on a clôturé le renouvellement mais munoo renouvellement nga koy def ba mois de juin. les licences oui. Hmm? mais mbëri bu nu amul combat du mais non ce sont les écuries écuries ñoo war a jël. Hmm. écuries yi ñoo war a jël ku nekk sa écurie nga jël ñaata lutteur nga nga dem renouveler les licences jël talon. bien sûr mais je nga xam. talon yëpp dinañ ko xam fan la nekk. ça va permettre aux CNG de de ne amoo combat rek dagoo licence. dagoo licence tu n'es les écrits loolu c'est affaire président écrit la écrit Nangam trois écrits tey jour sangam. yéen déposé licence. même tey normalement am cent mbër am cinquante mbër nga am. def licence même boo mënul fay ki mu nekk fa avoir boo xamante ne da koy fay. nga bëri ak nga bañ a bëri waaye toog rek jàpp sa ruq même non grand champion la. et puis et puis donc ñu taxaw seen combat ci la ñuy doon defar seen. déedéet ñoom ñëpp boo demoon ah. di wax aussi comme ça lutteur bu amul licence doo ànd ak mbër. du ànd ak mbër wàcc ci réew ah. bi parce que tu es une personne extérieure c'est vrai wàllu lutteurs yi ngay gis ñu ànd ak mbër yi amul licence ah. waaw mais loolu bu amee intrus nga il a parfaitement raison parce que bu buñ ko ah. dugalee ci ordinateur wala dara bu ñu demoon ba CEDEAO sax buñ ne lutteur licence temps buñ ko tapé sa affiche génn sa photo génn sa filiation. ñu xam ah, tout c'est qu'on dit euh, qu'on dit euh, personne non identifiée. voilà loolu la ñuy wax tout le temps ci làmb ji. non identifié kay boo ko déggee moo ko xamante ne kenn xamul koo doon. géwél yi tëgg non identifié lañ bokk. ñaata mbir leen sotti saafara non identifié lañ bokk. <laughs> te ñooñu dañoo identifié parce que làmb ak ni mel. parce que monsieur ci xaaj mbër. parce que parce que non identifié moo ko def. tey làmb war na toll foo xam sax day am feuille de combat. comme feuille de match mais non am na feuille de combat. non ah, feuille de combat du jour. du grand combat non non c'est-à-dire bu ma nee feuille de combat. comme par exemple l'équipe de dañuy bëre Gris Bordeaux mooy bëre. bu ñu ñëwee à l'entrée ñu xam comme feuille de match. jox au niveau du CNG ñu xam ne ñii. ñu àndal voilà ñii la ñu am de mos na def benn yoon. daan na am waaw waaye mbëri di ko bëgg a bañ. waaw la le vendredi. oui ñu wax sa président. oui remplir ñii ñëw ci làmb ji. soxla seen tur. Ah a identifier. gars yi bind tur yëpp ne la 20 yii la. voilà. waaye boo ñëwee ci vingt dañ koy def yëpp ay mbër. voilà bu ko mais mbër yi booy seetloo mbër yi. dañ leen di liggéey ñii mbër. ñoo ñoo fuuf ñoo indi problème yëpp. ñu ànd tey ñoo ñoo indi problème yi mais quand même tey tey géew bi quand même. set na non c'était fluide c'était non logistique bi c'était gars yi dañ cee liggéey ah. non gars yi dañ cee liggéey liggéey bu baax moo xam ci biti moo xam ci biir. la gendarmerie d'or à que y a qu'une seule fausse note. tey vraiment euh, vraiment la fluidité de l'internet n'était pas bonne. internet bi ah en toute honnêteté c'était pas bon. waaw pourquoi c'est pas bon c'était pas bon parce que amuloon fluidité boobu. dafa amul débit. waaw am le débit était trop lent débit faible trop lent xam nga peut-être peut-être débit 500 500 500 kii la 524 wala 512 wala 1024 normalement bu dee. 1024 dina am wala boo ñu seetaan ñoo bari. bu ah, ñu bëree. bu ñu jaayee bu ñu bëree. am na benn seet. Ah, mais loolu il faut ñu jël ci ah, war a jël. aywa war nañoo toog fu ñu naan pay bi doxul. pay-per-view doxul non sérieusement rek. et bëri ñu ngi may woo dan man leen man. xaw ma tey moom franchement. Ah, dundoo ko Pape leen di mujj yóbbu moo leen di wax nan nan. orienté dugal nañu waaw mais bu nu mënee xool tous. ñu xool tous dellu si waat. Babacar aju na. ah wala ñu. yeggale c'est dans vingt cinq minutes ah. qu'on aura le droit nous sommes en débr débriefing tuus tey wàññiwul dara. waa kon ancien tuus du ne non. Siteu la ñu bëgg jëli yu ko mooy maam Anta Bakar Kodou Lodj Faye Ndeye la Ndamba Siteu la xale baa ngi nii jili xale jàmm gën bi ñëw na jërëjëf jërëjëf loolu mooy loolu mooy touche yoo xamante ni macha allah maa ngi gis njuga sa xarit ah, sa mag sama grand sa grand xol bi sedd ndeysaan <laughs> ah, ah ndaxte moom it mu loolu rek la bëgg hmm. accompagnant yi nga xamante ni da ngay ñëw nga accompagner mbër mi ah, vraiment eh, dinga dina ñenn ñi bu nekkee sa wet dina dalal xel mais si nga toujours mbër bu ci bëree rek am benn kilifa sa doyen bu nekk ci làmb defoon dara ci làmb nekk benn figure bu ñëwee vraiment motivation la pour yow et c' comme ci discipline yëpp rek boo xoolee équipe nationale de football ces jeunes là bu à la journée nekk seen wet. Mhm. c' est motivant il les a fait rêver. nga xool Ndiouga Diakho si bëre woon nekk ci staff Modou Lo. Mhm. Modou di tuus mu jiitu fecc yore balam. defaat na ko tey encore. Mhm. donc c'est-à-dire que kon donc fii ak tant que Modou ngi bëre. Ndiouga Dia dina continuer def loolu. dina def loolu ça c'est hyper important ngay am ngay am daal ñi ñaan ñi ñaan daal les banderoles. les banderoles ñu ànd ak yow moo tax gisoo. dafa am décor boo xam ne benn mag. waaw benn mag waaw. kii daal day bëre mais ko ko conseillé donc mag ñooñu tamit conseillé nga nekk si benn jafe-jafe situation de combat bu compliqué mu ñëw taxaw génn la ci man dal na ma bëgg naa fekk Balla Gaye na ko yàlla yërëm ñu bëre bëre bu yàgg te metti jeexanaa mooy bi ñu defoon sax à la télévision en direct Mhm. alors ba ñu atti atti bi ma yi moor ngeen quatre ne may attend mais bu ñu nekk bu ñu dafa nga bëri nga jàpp tànkam y pas de dóor parce que boobu dafa woon ne nañu ma euh, xeex nañu xeex pendant dix minutes ma ñëw topp ko ci mais après nag ci xeex boobu ci la ma naroon naka daan na xëy na <laughs> ah, ah. ma nee nanga bu jëm ma sax xeex dama xaaj ci kaw dem ci suuf ah. jàpp am victoire rapidement des fois vraiment les anciens là sont tellement boo si ñi nga xamante ne ñooy. Euh, ah. euh, les lutteurs yi nekk sur le terrain. Jacques ah ah. yaakaar naa ne Moustapha Gueye bu doon bëri Moussa ñu ngi ñëw feeñ loolu daana indi yaakaar ci mbër ci supporter yi. non xam nga Tafa bi mu daan bëree. bon dafay dafay neex a faral parce que ñu koy entouré. Mm. parce que soo gisee Moussa. Mm. di nga gis Moussa di nga gis ndem si yàlla Mbaye Gueye. di nga gis Mor da gis Birahim di gis ñëpp di nga gis même tubaab bu même nekkutoon ci équipe bi sax mais di nga gis des fois bu wàcc ñëw wax ak loolu motivation la woon. <laughs> Mm-hmm. contre Balma. donc ça veut dire que Tafa Gueye Tafa Gueye Yékini mm-hmm. <laughs> mu taxaw ni sama wet sama wet. naan ko xandal ko. waaw mm-hmm. eh, yow foofa. ma ne waay bàyyi ma ko fayee sama gannaaw ko yàlla dem desaan. xandal ko xandal ko. <laughs> da mais loolu dafa am solo. ma ne ko yow faroo foofu ah. mu ne ma foog di sama rak. <laughs> yaayam di sama yaay. damay indi laax yooyu continuer. ah donc loolu loolu. loolu moo manqué léegi les écuries la les hmm. écuries ils ont besoin d'un sage à leur côté. Hmm. des fois gis par exemple. kenn day nekk par exemple je prends l'exemple en banal une écurie comme Fass. ñu daan la nga dem créer sa écurie. Hmm. waaw seul. tu n'as pas de sage tu n'as pas de conseiller. amuloo ñu la ëbb. soo xoolee aujourd'hui la chance bi par exemple écurie Fass am ba léegi taxaw soo xoolee écurie séeréer amatul écurie waalo presque disparaître na. parce que amatuñu ay saas yoo xam ne léegi ñëpp séeréer waaw non amatuñu amatuñu ay kii yoo xam mais soo gisee par exemple comme ni ko Tafa waxee waa Pikine suñu bëree da ngay gis ñoom Massour Diop. Hmm. ah ñoom Jules Baldé. ñoom ñoom Dégol xaan ñoom ñëppay ñëw waa caaro yi bu ñuy bëree aussi. da ngay gis caaro yi. ñoom bu njëkk ba ñëpp waa Fass bu ñuy bëree aussi tu vois Moustapha Gueye kii la au delà de Moustapha Gueye di nga gis aussi la dem di nga doon gis. dem si yàlla faga ak ainsi suite. moi je pense que même ñun dañ laa ànd ak voyageur Bokande mu ànd ak équipe nationale mais xool su suñu suñu wàccee ñëpp Bokande la ñuy kii. ñëpp Bokande la ñuy hmm. parce que c' était une icône. groupe dafa baax moo am icône boo xam ne. Hmm. kii référence la tey par hmm. exemple Moustapha Gueye bu ñëwee di wax ak mbër référence la parce que dañuy xam ne kii am na lu mu def ci la mais Mbaye su àndee lan la koy conseillé lan la koy kii. je prends un exemple banal ah ñu ne souvent par exemple un Lamine Golo man xaw ma ndax mbër mbër la wala déet muy conseiller Balla Gaye non je donne un exemple banal quoi. mais mais, mais pas banal moi, moi c'est logique c'est problématique. bien sûr parce que. booy booy booy conseiller kenn dafay am loo koy ëppale. bien sûr benn valeur ajoutée boo koy apporter. Mm. waaw. mais des fois di nga gis benn mbër bu toog wala kenn di coacher kenn comme par exemple un Socé quand il coach tu sens ni kii am na lu mu jàng faas. mais Socé ak. Lamine Golo solo wu ñu ah. non mais non sérieux Lamine Golo dem dem na équipe nationale de quoi. sélection nañ ko présélection présélection présélection. non c'est-à-dire que. qu'est-ce que vous parlez de présélection mais tollu woon nii ah. ah bon non c'est-à-dire que non <laughs> non présélection non Bécaye non dama joxe exemple comme non rek comme par exemple xam nga Balla Gaye tey par exemple Moustapha Fass kuy bëre bu la wooyee di nga ñëw mm. mais am na ñoo xam ne par exemple Balla Gaye 2 am na ñoo xam bu ñu ko wooyee buy bëre du leen sax xool parce que xam na ne ñii mun nañu ko apporter dara mais tey Tafa fu mu dem wax mais dafa am na ay mbër yoo xam ne dinañ bëre bokkuñu ak équipe Tafa dinañ ko woo demander ko conseil kon kon lamb tey ji li ci li tax Siteu jëlul defet hmm. coaching ci la wala ah, bokk coaching ci la si am na si bien sûr mais coaching bi def na erreur aussi erreur mooy ci fin bi erreur bi oui parce que am na moment boo xam une minute cinquante six tu as trois avertissements hmm. mais attends loo am jël égaliser oui est ce que foofu li ngay wax les sages du fa lay amee njariñ hmm. conseil bi voilà dama ko mos a forcer sa xarit euh, muy père may ngoone Fall mu ñuy seetaan mu koy nuyu au <laughs> mu ne mag moo ko dëgg la euh. mu ne géew Mm-hmm. il faut mu am boroom doole. Mm-hmm. ak borom ah, bijaaw. Ah. ñu ne ko lu tax mu ne borom doole bi bu dara di ñëw mën na ko jéem a fànq. Mm-hmm. mais borom bijaaw mun na toog di gis lu xale doo gis. yaa ngi koy wax si coach bi bi mu desee une minute cinquante. waaw bi moo waroon wax ak moom. moo waroon ni ko dem attaque ko. moo ko waroon wax soit nga def loo ko avertissement ngeen match nit. parce que wala moom nga bëri loo ko. da ngay sentir ne tey xam nga max mi ngi fa. da ngay sentir absence su sax dem si yàlla Alioune Diop. si da Alioune Diop mooy seen coach bi woon. ah oui oui ndeysaan ah oui ah, ah si si si si il était bon. da ngaa gis des fois il était bon. da nga xale yi déggal ko. non ba pare xale yi déggal ko ba pare il était bon techniquement ba pare psychologiquement. Mhm. donc yooyu aussi. mais nag c'est li mu bëree. entraîneur la non consigne la coaching la consigne la parce que stratégie du début à la fin. c'est-à-dire ci fin bi la coach bi ragal. attaqué wu ko comme ni mu safaa mais aussi nag dafa attends booy attaqué ci ku mel ni Modou Lo il faut des arguments yu. ah bien sûr absolument. si exactement. mais euh, loolu sensation la yëg-yëg la. ci yow wala ci mbër mi sax ci mbër mi. parce que mbër mi tey bu amul idée arrêté bu mu ñëw xam nga mbër tam su fekkee da am noo bëgg a bëree ñëw ne tey dooma daan doo xalaat mukk nooy daan jéem a daan. mais par contre ci benn côté bu nekk j'ai vu le coach de Modou Modou Lo euh, Pape Mbaye maa ngi koy nuyu de passage. mais vraiment j'avais pitié un peu pitié de lui am na boo xam ne dafay dem yuuxu Modou Lo. fekk ko ba ci touche yi. waaw parce que Modou Lo mi ngi reyante. waaw ak Siteu te moom gis na ne. lii du lii du Modou Lo mu reyante ak Siteu pour daan ko. waaw mu naan ko loolu tax nga organisé ko dem bëri jéeg moom. que uh-huh. muy reyante ak moom ndax nit ki attention. am na ci mbir yoo xam ne boo xasee dóor mbaa nga dóorante ak ñoom. c'est fini. boobu Modou Lo moom bu la ñamee benn yoon. Uh-huh. mu nga dóor ko mu dóor la ngeen patam patamet yi. fii dafay gën a may courage maa ngi ko sax depuis combat ak ko Zarko waaw. et puis combat boobu la doon bëre tey de. c'est même chose amul amul combat boobu la doon bëre combat boobu la si te doon bëre tey. heureusement mu génn fa victoire. Uh-huh. mais euh, genre façon Siteu war na jéem a xoolaat na léegi nag moom ñu topp ci ginnaaw bari nañu. léegi mu mu je viens je gagne par la force. Uh-huh. et puis mën na xeex ne nañu. mais pourquoi doorul mais gisuma mu xeex dafa doon xeex tey. mais Modou Lo muy xeex moom dafa doon xeex. moom sax moo doon def hostilité ci moom la waroon njëkk a jógee. moo gën a njool. moo gën a féete ndaw moo doon jékki-jékki jam jam droite baax càkk bu Modou Lo ñëw mu dellu ginnaaw. Mhm. xeex bu propre même Modou Lo sa ci côté bagaar bi tey da cee réer. daf cee réer gis mu ko. kenn xamul lu mu xeex. kenn dafa dóor direct kenn xamul dafa dóor crochet. Mhm. même corps bu naan ko di dóor sax. tey jii corps na mais amul ko benn njëriñ. amu ko sax vraiment man nag ah. damaa toog mu reconnaître ne eh. tout athlète bu mu mun doon ci àdduna. non doo nekk sa jour yenn saa yi quoi. mu mhm. footballeur beeg muy basket baag muy koo mun doon dina am bis rek doon bis boo fonk nag bëgg ci def lu nga nga def ñëw mel toogal bul yëngu waxuma seen garabu garabu de waxuma que dañoo takk kenn kenn takkul kenn kenn liggéeyul kenn. Eh yooyu ay ci takk gisuma ci. déedéet ñàkk tey xam nañ ñoom ah, ah, ah, maa koy wax Mamadou ci biir reportage ma ne ko xam ne bu doon takk am na ca commencement ba nga koy mais fi ñu ku ëpp endurance ëpp mayen mm-hmm. yaay daal le mental bu baax mooy tax nga daal te Modou man wóor na ma ne maa ngi koy xool mais xam naa ne booy bi nekku fi mm-hmm. Modou tey dese na yu bare daal il nous toujours les hommes qu'il faut à la place qu'il faut kenn ku nekk ak sa métier